mbokk yi ñu topp ci xasida gu tedd di nuuru daarayni fi xidmatil aami anil aarayni noo ngi del si waat ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala mbokk yi xam ngeen ne démb ñu ngi daane woon ak yéen sunu boo toppee xasida ga ba fu ñu daane woon ak yéen demb moo lay jox juróom fukki bayt muy lakka bila sikayatin min nii sukóor yaa man wahabtali muraadi yaa sukóor mooy lakk jëm na ci yow yàlla kot kott kott sukkoor yi samay cant te bilaa sikaayatin ci lu benn jàmbat mi nii guy bàyyi ko ci man du ma jàmban mukk te sama cant yëpp ci yow laa ko jëmalee ndax yaa man yow yaay ki nga xam ne waxabta yaa may lii ñal ma ey eh waay sama xarit muraadi yaay ki ma may li ma namm muraadi yaay ki ma may sama xemam teef yaa sukkoor yàlla muy cantaakoon mi te yow ñu cant la mu mel ni kon bu ngeen ñu toppee wax naa leen ne xasida gi sëñ bi bindut ko rek di bindi di dem déedéet lu ne dafa am lu ci jublu booy xool jëmmi xasida gi waxoon naa leen li ko tàmbale ca njëlbeen ga alhamdulillahi lasi yusalli ba yaa man jaxalta salawaati naambiya ani masafara tuloo gi taawee loolu ba ko xoolee fanweeri bayit la lay jox mu tolloog jëmmi weer yi fanweeri fanweeri bis yi nga xam ne ñoo nekk ci weer la ci jublu nga xam ne da koo tënkee jëmmi weer yi waaye boo baye koy waate foofu mu tegaatoon na ci wali am daahi jaxalta ka jihaat kulli mujahidin hadayta sa jihaat wali jaxalta jumlata suhóori liya sa waahida maa tóori lu tax mu indi foofu yi muy day wane ne kon yow yàlla na nga def mboolem weer yépp ñi may seedeel waaye nag ak jihaad bi ma nekkee seen biir ak not gi ma not sama bakan ak sama bànneex ak seytaane ak lépp lu bon ci seen biir loolu weer yi nañ ma ko seedal waaye nag ànd koog laab goo xam ne gu seet ci la ndax jihaad ñaar la jihaad bii moo am muy jihaad joo xam ne ci jaasit lañ koy defee ak jihaad joo xam ne mooy jihaad ak sa bakkan ak ñeenti noon yi nga xam ne moo ñi koy tënkee nasaadu te ñeenti noon yëpp sëñ Tuubaa na leen ba nga xam ne tër na leen ñoom ñëpp noonu yëpp iblis moom yàlla daqal na ko waaye ñett yu ci des yëpp muy adduna ak bakkan ak bànneex ñoom ñëpp dañoo topp ci gannaawam dax wàccan xawaaya taabi an lima tuhib la suñ tubaa wax waaye malaktu na yow sansatu leen la wax aqastu min du saat lil jinaan ba demeet ba demeet ba ila aqri kon nga gis na xasida xasida jiyaat la waaye gis nga itam bi mu tàmbalee waqul li jibril la waxoon naa leen indi na juróom-ñaari bayit lu ko tàmbalee waqul li jibril al amini ba yegg ci waññal kitaaba kama yaa haysu akoon yaa waahiban wàttalikun fi ko loolu mu lay juróom-ñaari bayit moom it mu ci rek da tënk ngir secret semaine bi moo ci nekk muy xam ngeen ne semaine bi lu dalee dibéer ba nga xam ne mooy samedi loolu juróom-ñaari bis la kon loolu nga xam ne wat boo gis rek muy ñaan yalla nan ko defal nangam rek xamal ne am na lu mu ci tënk de ba mbaykaatu foofu na yàllaaw sali wa taslim kullin ala habibika salin waaye li gën a yéeme mooy bi mu kitaaba te min te mooy aqastama an yebbi tabi saman bilaa iqaalatin atatali saman ndeke loolu moom lam ca jublu dëgg dëgg dëgg mooy waxtu julli juróomi tusubaar tàkkusaan timis gexe fajar ndeke lii la ci jublu ndax ndeke lu tax mu indi moom Sëñ Tuubaa ne waxtaan kitaabate min sal yow mi na nga def sama mbind mi ci bis bii mu kawee julli guñ nanga ak koor guñ nangu ndeke toone dafa indi juróomi bayit yoo xam ne da koy ñaan ngir lan day isaara day junj ngir lan mu tolloog julli juróomi maanaam Sëñ Tuubaa ku koy dund rek mën xam ku koy dund nuuru daare ni fu ni damay bañ di taxaw waaye ni ko sëñ Tuubaa rabbalante ci bit waxuma la sax waxtu julli juróomi ak euh, juróom-ñaari bis yu nekk ci semaine bi ak fanweeri bis yi nga xam ne ñoo nekk ci weer wi ak at yi ni ko sëñ bi rappalante loolu rek buñ ko doon nettal day yàgg nga xam ne dañuy am yéene bi loolu waaye dañuy gis ne loolu buñ ko buñ ci nekkee dañuy dem ba fàtt ne sax dañ maanaam ci nuuru daareen lañ nekk di firi kon gis nga waj naal kitaaba te min sal yam foo ko salaat ni xubilal wa saw mi ba ak xas tama an bi ta bisaman bi laa ba ba muy jëlaate naan ko lakka bilaa si kayit nga xam ne soppi na soppi na waxin nga xam ne juróom bayit yooyu la muy sémbéese mooy waxtu julli juróomi waaye itam fu ne fi ñu daanoon de mooy lakka bilaa si kayitin ministre yaaman waxab tali muraadi yaasukoor kon ba tey kon tey ñu war a dal ci wasalli yaa rahmaan wal tasalimi ala lasi bii fakkatta walla mi mu ne wasalli yàlla nga dool xel yow yàlla yaa rahmaanu yow mi nga xam ne yaay xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna wal tasalimi ta nga dolli wóolu ala lasi ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bii ca darajaam ju màgg ja bii ca darajaam ju tedd ja yow yàlla ta ci nga xobbee fakkata ci nga daje wala mii sama jéng de mun yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga dolli xéewal yaw mi nga xam ne yaay xéewalaa kon bépp mi néef ci àdduna tago dolli walu de ci kaw yonent bi salaay salaam mi nga xam ne ci darajaam ci nga xobbee sama jéng ndax loolu yàlla moo dindi jëngam jéngam mooy lan xam ngeen ne kuy tagg yonent bi salaay salaam wala ngay julli ci yonent bi am na jéng yi dox sa diggante pour nga a yegg ci yàlla nga mën a jekku ni nga war a taggee yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ni nga war a jullee ci moom waaye nag bi mu départ ci jasbul la xam le ne yàlla dajji na sama jéng yooyu sa kartoo sa xidmatin fil xalani lahoo wa fakka wala mi nee na yàlla moo dajj sama jéng de nga xam ne léegi danaa man di tagg yonente bi di julli ci yonente bi te nag mooy ki nga xam ne mooy ki daj sama jéng loolu nag bu koy wax min babin taharusu bi ni'amillahi tabaraka wa taala day sant xéwal yi nga xam ne moom la ko boromam defal de moo tax man yow yàlla mi nga xam ne yaa aji xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna sa tur yi la mu làmboo ci ay secret ak ngëneel ya ca nekk yépp na nga dolli xéwal ak mucc te mooy salaatu salaam ci kaw yonent ne ci dara jàmm ci nga xobbee sama jéng tey boo demee ba dajj ci ko sànni ko nga xam ne du ma sama digg ak yonent kenn doxut sama digg ak yow kenn doxut ci de sallallahu alayhi wasallam mu ne ko kay nga xam ne ci dara jam ci nga xobbee sama jéng sayidina mooy sunu sang bi muhammadin turo mooy muhammad wal ali salaatu ne ñëw ba ci waa këram wasox bi ak ay saabaam yépp fil haali fii ci biit adduna wal maali ak delluwaay bi tamit ëllëg yomal xiyaam de kon julli ci jëm yonent bi salaay salaam indi ñaari bayit ba tey ma ngi indiwaat yeneen ñaari bayit yoo xam ne sëñ Tuubaa dafa am lum ci jublu ca dëgg-dëgg mu ne wasafi li yaqasati wa naw mi wa suxli xayri jaalibaati law mi yow yàlla wasafi maa ngi lay ñaan nga sellal li ñixel ma yaqasati samag yeew wa naw mi ak samag nelaw waaye wasux yàlla nanga nga màng li xëyri mu jëm ci ku dul man jaalibaati law mi lépp loo xam ne day bijji ak yeddaange de mu ne yow suñu borom nga sellal na nga sellal samag yeewu ak samag nelaw ndax ku ku yàlla bind ku ne da nga nelaw waaye da nga yeewu waaye nag am na ci ñoo xam ne ñi ngi nelaw waaye seen nelaw yi du nelaw noflaay de seen nelaw yi nelaw njàqare la de bu ñuy nelaw ñingi ngi njàqareel sëñ Tuubaa nag dafa tolloon ci boromam foo xam ne ay nelawam sax sunu borom da koo soppi di ko bindal payor ak jaamu yàlla joo xam ne ku fanaanoon naafile ak jàng alquran tëri kaamil bi yëpp sax payor googu doo ko am de ndax naw mi ibadatu rabbin la sarika lahu xal bi yu dabiru ayan tortulikman nee na sama nelaw jaamu yàlla la jaamu goo xam ne di xeeti génn aji bokkaal di ko ñeel yàlla mi nga xam ne di xeeti génn aji bokkaal di ko ñeel nee na sama nelaw ak jaamu la ci moom ndax bu may nelaw nelaw wóor na ñoom xaarif woon billaahi nga xam ne suñ tubaa ci la bokk ci seen wala nga ne moo ca raw ñoom bu ñuy nelaw seen xol ba nelwul donte seen bëri ñi ngi sax loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ndax waxayn woo kaana tanaam waxal boo lam loolu itam da ko war a faa da ko ndax sëñ tubaa mooy koppi ak moo tax mu ne xadarama xal ko compi copie moo tax xal bi bi lixtidaa mooy dañuy copier xolam bi ci rasulullah sallallahu alayhi mu ne nag wasafi na nga sellal li ñen ma yàq sati sama yeew wa naw mi ak sama nelaw na nekk nelawug naflaay waaye yeewoog noflaay bu am benn njàqare ak tiitaange na ko noonu bu ma duggee sama biir bàmmel bu ma nelee ba ba ma yeewu na ko noonu ba yowmal xiyaam loolu yëpp loolu yëpp na nga ko sellal bu ci lenn liy xeeti nax nag ak loo xam ne euh, bokkut te ak luy xeet ak tiit ak njàqare yëpp ci biir nelaw loolu na ko dindi ci man dàq ko ci man ban seet wi ci de waaye loolu la koy maye lépp mooy sellal ak ixlaas waaye nag ak xam-xam ak jaamu yàlla fa tabaarakallahu mu ne kon na nga waaye na nga màgg ba jëm ci ku doon man lépp loo bi ji ak ya daange ndax bu fekkee sunu borom tabaraka taala sellal na sama yeew ak sama nelaw màng lépp loo xam ne day bijji ak ya daange lay bijji ak ya mooy li nga xam ne mooy safaanug lu baax ko ca nekk rek sunu borom tabaraka taala dan la yedde gannaaw ba nga xam ko kon nag na ak yeewam ak nelawam màngal ko lépp luy bijji ak ya daange rek mu ne wa harakaati yecc xalan wa sakanaat laka ahaba min jamil hasanaat mu ne yow sunu baram wacc xalan yàlla na nga def harakaati samay yëngutu yëpp wa sakanaat ak sama dal yi lakka ñeel la mu jëm ci yow képp waaye nag ahaba muy li nga gën a bëgg yow yàlla min jamil xasanaat ci mboolem yu rafet yi nga xam ne say jaam dañ la danañ la ko defal de yow yàlla nga xam ne nit ki ñaar la muy diggante harakaat ak sakanaat nit ki diggante dal ak yëngu ñaari xaal yi rek ci lay dund Sëñ Tuubaa ko yow yàlla na nga def sama harakaat yi yëpp ak sama dal yëpp nga xam ne mooy li la gënal ci mboolem jaam yi nga xam ne eh, dañ la koy jaamu te mu doon ñi nga xam ne yu rafet yu rafet la ñi nga xam ne dañoo yegg ci dayob al muxsinuuna ñi nga xam ne fu ñu toll yu rafet rek ndax man jaa bi lasanati suñu borom nee na ku indi benn bu baax kooku fa loo xayrun min haa de wala man jaa bi lasanati fa loo ansuru am saaliha de ku indi benn bu baax ñun yàlla dañ ko ko fulal fukk nga indi fukk ñu fulal la ko téeméer nga indi téeméer ñu fulal la ko junne ba mu gën di bëri de Sëñ Tuubaa nee na jaamu yàlla yooyu nga xam ne jaam ñi dañ koy jaamu teg ko ci maqaamam al muxsinoona nga xam ne dañuy rafetal rek di ba yegg ci seen borom ñooñu ñëpp boo xoolee seen rafetal yi ñu nañu toll maanaam yow yàlla sama xarakaat ak sama yëngut rek na leen wat ne buñ leen peese nga xam ne wax la joo xam ne ju la waaye boo xoolee jëmmi ñaari bayit yi muy wasafi lii yaqasati wa nawmi wa soxla xëyri jaalibaat law mi ak wa harakaatiya ijhalan wa sakanaat laka ahaba ahaba min jimalaas naat ñaari bayit yi sëñ tubaa mi ngi ci jublu jëmmi at mi sëñ tubaa ku yëmi la boo jëlee waaw gi mooy juróom benn gi waaw ak wa safi juróom benn weeri lay junji te mooy lu ko dalee weeru muharram ba nga xam mooy jumaada saaniya boo jëlee waaw ak wa harakaatiya nga xam ne lu ko ba jeexantalu weeru tabaski de te mooy silhi jëfa tabarakallahu la ci jublu de mu nekk jëmmi at mi ñëpp yëngatu gu ma mos a yëngatu ci weer yi ak at mi yëpp ak dal gu ma ci mos a yëngatu yëpp yëpp weer yi nañ ko seede waaye lépp lépp na doon tiyaaba joo xam ne moom moo lay a yow suñu borom tabaraka taala loolu buñ ci taxoon danañ yàgg sax ni ko sëriñ bi rappalaate ci biir moo tax ma ne waccalaan yàlla na nga def xarakaat yi sama yëngut yi wasakanaat ak sama dal lakk jëm ci yow ahba muy li gën a bëgg min jëmel xasanaat ci mboolem yu rafet yi mboolem yu baax yi nga xam ne fa tabarakallahu yow yàlla da nga ko nangu te mu doon wax ne lu sell yàlla di nangu te mu doon alxasanaat muy yu rafet sama dal ak sama yëngutu képp na ci a yàlla de waxuma la sax jaamoom ak leneen de waaye nag loolee bu xasee am bi xëyri afatin ci lurut benn gàkk-gàkk bu mu ci dugg wa xëyri kadri ci lurut benn nëx-nëx di ci dugg yaasal baraaya yow yàlla mi nga xam ne yaay borom bindeef yi wal xadaa ak dogal ba wal xadare wal xadaa ak atte ba wal xadari ak dogal ba yow suñu borom lii yëpp bu ci amee nga def samag yëngutu ak samag dal muy li la gënal ci mboolem yu rafet yi loolee nag bu xasee am nag bu ci benn gàkk-gàkk bokk nga xam ne suñ tubaa dafay yéeme de lépp ñaan borom tabaaraka wa taala day ñaan yàlla ñagalee ko ko noo xam ne lenn luy xeeti gàkk-gàkk wala xeeti nax nax du ci bokk de yow yàlla nga xam ne yaay ki moom bindeef yaa leen da nga leen dajale ñoom ñoom di leen atte ba di borom dogal ba xaddaa ak xadari ñaar yëpp dañuy tekk dogal waaye bu fekkee xadari dafa jalgati xadari ci xaddaa bi da nga koy tekk li nga xam ne mooy atte ba waaye nag te mooy atte gi yàlla di atte bindee fi waaye nag xadiri da nga koy dogal bi yàlla mooy dogal lépp lu am moo ko dogal moo xam bu neex bi la wala bu naqari yëpp de kon nag bi xayra afatin ci lu benn gàkkaaku wa xayri kadiri ci lu benn nax-nax yaa sal baraya yow mi nga xam ne yaay borom bindee fi yow yàlla wal xaddaa ak atte ba wal xadiri ak dogal ba de sallallahu alayhi wasalli ya rahimu bi taslimi ala wasal yàlla nga dolli xol yaa raxiim yow yàlla mi nga xam ne yaay aji yërëm ku la soob ci àlaaxira bi taslimin gu ànd koog dolli wóolu ala lati na nga ko sotti ci kaw yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne muy borom ak jàngale sallallahu alayhi mu ne yow maa ngi lay ñaan nga julli tey sëlmal yow mi nga xam ne yaay xool ñi la doon jaam fii ci kaw suuf nga leen di natt ñu koy muñ bu yomal xiyaamee nga dugal leen roof leen ci sa biir yërmande ja yàlla nañ yàlla boole salaatu wasalaam ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne da nga ko yónni mi borom ak jàngale ndax yonent bi sallallahu wax ci ahadis ne innama bu'istu bi ta'limi yàlla kat daf maa yónni ngir lan ma saafara jàggoro yi yàlla daf maa yónni ngir lan ma jàngale waaye yàlla daf maa yónni ngir ma mottali jukko yi nga xam ne mooy jukkoo makaarimul axlaaq mu ne mooy sunu sang bi Muhammadin turo mooy Muhammad wala ali salaatu bi ne ñëw ba ci waa kër Musaa bi ak saabaam ya fii xaali fii ci dina wal maali ak delluwaay ba te muy ëllëg yawmal qiyaam léegi nag mu ngi jëlaat li gën a bi kulli xayrin wax mi nii an law mi boo ko xoolee dana indi fukki bayit ak ñaar mu jublu ci fukki weer yi ak ñaar buy at mi rek sëñ Tuubaa la fukki bayit ak ñaar lay indi nga xam ne lam cee junj rek nga xam ne mooy jëmmi fukki weer yi ak ñaar te mooy li alquran di wax ne eh, li mu weer wi yëpp fa yàlla kooku fukk eh, fukk la ak ñaar de ina xendata suxóori xendalaay isna sahra xendalaay eh, isna hasara sahran fi kitaabillahi yawma xalaqa samawaati walaata minha arbahatun wuhurumun waaye weer bi ñu nekkee fukk ak ñaar ba noppi am na ci ñeenti weer yoo xam ne yàlla da leen berde moo tax ne wasaat nanga nga seedeel yow yàlla li ñeel ma al yow ma tey jii may waxanteeg yow wa bax dal yow mi ak gannaaw bis bii te mooy ba bis pénc rek la ci jublu bu ni yow ma mooy tey jii muy bind xasida gi yàlla na ko seedeel moom jëmi sëñ bi wa bax dal yow mi nag mooy la nekk ci hiinan fa hiinan la nekk ci gannaaw jamono nga xam ne ba ëllëg yowmal qiyam waxuma la weer sax dañ koy seedal waaye sunu borom moo koy njëkk a li sëñ Tuubaa doon def ci àdduna ndax yàlla nee na maa seede lépp moo tax bi bu yowmal xiyaamee bu bu ñu waxee ti yàlla xinsa lan lay wax maa qultu lahumoo ilaa maa amartani yow yàlla ñii nga yónni woon ma de waxuma leen lu mooy li ma digaloon te mooy jaamoo leen yàlla mooy sama borom mooy sama borom di seen borom te yow yàlla seede woon nga loolu waaw ba ma saxee ci ñoom ak ba ba ba may yëkkati ba nga may fàtt di ma yëkkati yow yàlla loolu yëpp gis nga ko yow yàlla wa anta ala kulli shay'in sayyidun yow yàlla seede nga loolu lépp sëñ Tuubaa nee ne loolu lay wax na ne yow yàlla nanga ma seedaloo tey jii may teg yow ak gannaaw tey ba bis ci sax nanga ma seedaloo bi kulli xayrin nag xayrin googu doo ko firee yiw bi kulli xayrin ci lépp lu baax nanga ma seedal ne man sëñ Tuubaa sama cër yëpp def nañ ko ba mat sama cër yi nga ma dénk yëpp def nañ ko ba mat lépp lu baax loo mos digle lépp lu baax loo mos a digle man Serigne Touba nag ma seetal yow yàlla tey jii ak lu ci gannaaw tey jii ne lépp lu baax def naa ko moo tax ma ne wasaat yàlla nanga nga seetal yi ñan ma al yow tey jii wa bëx dal yow mi ak gannaaw tey jii bi kulli xayrin lépp lu baax yàlla seetal na ko waaye wax mi ni na nga ma xaar xan law mi walis yeddaange lan mooy loolu mooy boo ma seedalee ne lépp lu baax sama cër def nañ ko waaw ndax yonent bi salaay salaam laataa roogi di tàggug jëmmam yàlla seedal na ko loolu lépp na ko tey jii diini ji bat na sa lépp mat na sëñ Tuubaa na ko tey jii nang ma seedal lépp lu baax ak gannaaw tey jii waaye nag nang ma xaar walis ya daange mooy lan mooy yàlla seedeel jëmmi sëriñ bi na léppam jekk na ba noppi sëriñ bi na yàccax commencé lan ci misaal buñ ko doon waxin mu mel ni man mu di mii dem ba làq ngërëmal yàlla euh, ci waxin ba yàlla gërëm ma ma war a soññ sama bopp gën a takkaayu waaye ma gën a yasax comme xam naa ne yàlla gërëm na ma rek jeex na naa dem ci yu bon yi booy xool sahaaba yi ñoom bi leen yàlla diggee aljana bi leen yonent bi salaay salaam diggee aljana ci kat nug yàlla ak mbaaxam keroog lañ dàqa jaamu yàlla mosu ñee dem ci luñ leen di yeddee keroog lañu gën a takkaayu kacay naafale xaaj kaw bi keroog yokku nga commencé naafale kaamil ka ci daan jaamu yàlla tuuti commencé nga sa waxtu yëpp doo ko neenal waaye xoolal tey jii boo fi waxoon nit doo ko dig naa la aljana mooy tukkal nga duna commencé na caaxaan yi ndax xam ne ko neexee dem fooy moo tax suñ tubaab ne wasaat nag ma seedeel yow yàlla lii ñen al yow ma tey jii wa bëx dal yow mi ak gannaaw tey jii bikku la xëy ci lépp lu baax sama cër yi matal nañ ko ci biir weer yi ci biir bis yi ci biir at ci biir weer yëpp sama cër yi matal nañ ko waaye nag nag ma xaar walis yeddaange bu ma demati ci lenn loo xam ne gërëmoo ko waaye yow yàlla mu ngi commencé waat nag di félicité waat mu ngi félicité waat waxan ni yeccil taxa xayran yëfoo fil haali wal maali yaa xayra rafiq bayit bi bay bokk na ci bayit bi ma gëna a neex ci jëmmi xasida gi bayit bi ma gën a neex ci jëmmi xasida gi bokk na ci ba léegi yonent bi nga xam ne moo ko dafa ànd toon ak moom rafiqi lam ci teg wal Mustafa nabi bi yàlla bi la àndat waaye nag ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag comme dem na ci tukki bi ba tukki bi jeex da leen di félicité ñaan yàlla na ko yonent bi fayal ma ko kenn ma fayal ma yonent bi mënuma koo fay wàcci payal yaw yàlla xam ne jëlee ci man mu mel ni maa ko fay kan mu ne al muntaxaa kañu tànn ka al muntaxaa ka seet wicc ka mu ngi bay ko ci baatam naq koo xam ne taqu tara lépp ma set dañ koy examen dañoo xool gépp fànn gis ne kii daram am kii lépp ma set kii am benn gàkk-gàkk kii karkaram gi dafa bill kii lépp ma taaru kooku muy al muntaxaa mu ne payal ma ko sëñ Tuubaa ñu ne ko sëñ Tuubaa gan pay la ko yàlla di pay waaye déglul xoolal jegle gi gum ko jegleel wàcc payal ma yow yàlla xam ne jëlee ci man mel ni maa ko def awma payam al muntaxaa ko ñu tànn ka xayran ay yiw yoo xam ne yëfu dana kawe sax na la di na ma waxee woon yow yàlla nag ma ko jotalee malaayika yi ak saaba ya waa ahlu badar moom kooku moom yëfoo yëfoo boobu xam nga lu ci jublu mooy xam nga ci gannaaw jàngoor gu muy wax ne payal ma malaayika yi payal ma sahaaba yi payal ma ahlu badar payal ma yonent ya payal ma anbiya yi ñëpp léegi nag mu ne pay gi ngay fay yonent moom yëfoo na kawe yooyee waaye nag ñu ne ko sëñ Tuubaa waaw pay gi moom adduna lay nekkul alaxira mu ne na kawe yooyee waaye nag kawe ga fil haali fii ci biir adduna la wal ma ali ak delluwaay ba te mooy ëllëg yomal xiyam yaa xayra rafiq yow yàlla muy ngën ci àndaale yàlla rek ma àndal mu ne payal ma yonent bi salaay salaam ay yiw yoo xam ne day kawe mboolem ku ma wax nag nga nga jotal nga jotal ma ko samay mbégte na bég naa mën suñ tubaab ca moom moo xam maraay gi ak ku mën a doon yonent moom loo koy fay na kawe loolu yëpp waaye nag adduna ak ma ne wàcc nag ma payal andee jëlee ci man yow yàlla al ka xayran ay yiw yoo xam ne yu fuux day kawe waaye nag fii la xëli fii ci na moom yiw nga koy pay wal maali ak delluwaay ba ëllëg yomal xëyam yaa xayra rafiq yow yàlla mi ngën ci yow mi nga xam ne yaay ngën ci àndoo àndaale ndax ku àndatul ku yàlla a doon léegi nag mu ne wax niyet ci ahla badrin sarmada xayran kasiran wa kitaabi ahmada xam nga bi mu waxee fee jibril la njëkkoon a tudd bi muy félicité jibril jibril la njëkkoon a tudd inu toon fa yónent bi sallallahu alayhi wasallam waaye foofu suñ tubaa dafa am lu fa namoon xam nga loolu ñaata bayit la boo ko toppee ba waccaxal kitaab ba ko may xay sa akoon yaay waaye ban wàttali kun fay kon loolu juróom-ñaari bayit la mu jubli ci juróom-ñaari bis yi nekk ci semaine te mooy dimanche ba samedi moom la ci jublu fii nag day indiaat lu toll ci fukki bayit ak ñaar mu jublu ci rek fukki ba bayit ak ñaar mu jublu ci fukki weer ak ñaar nga xam ne at mi lépp moo tax mu waxaat ko kon saaba yi loon na leen waaye léegi da leen di ñaanalaat waaye ahlu badar ñaanaloon na leen waaye léegi da leen di ñaanalaat mu ne wàcc ay waay waay yàlla na ma payal ani jëlee ci man ahla badrin waa ahlu badar sarmada ci luy sax ba faw payal ma leen ci luy sax ba faw nga xam ne pay gi léegi ci biir weer yi ba léegi fu ne nii yàlla mu ngi pay waa ahlu badar ngir lan sëñ Tuubaa moo ko ko wax na ko jot la ma seen mbégte da ba ilaa axiril nag na leen fay xayran ay yiw yoo xam ne kasiiran yu bëri lay nekk waaye wax ma daal yal na nga sant kitaabati sama mbind bi sama mbind bi na nga ko gërëm sama mbind bi na nga ko sant bég naa yow yàlla kontaan naa ci yow félicité ma ñii yow rek yaa ma ci doy waaw yàlla mi nga xam ne tey mooy ki bind jaan ñëpp xam leen bind lépp lépp moom suñu borom ko taala waaye mën a leen bu demee bay félicité bi sëñ Tuubaa di ko wax na ko yow yàlla yaa ma ci doy félicité ma saaba yi ndax payor gi dana am dana yem fenn ak sahaaba yi nga xam ne lu ñu daj ci lislaam ba yàlla gërëm leen tagg leen ci alxuraan lu ne te làq nañ ngërëm ngër mande te bu yowma xam danañ tàbbi aljana sëñ Tuubaa sàkkuwaat ci yàlla geneen payor gu double googu ba yowmal xiyaam da leen fay yow yàlla waaye nag félicité ma leen yaa ma ci doy bu mu leen doon félicité na doy maanaam ku ne nekk sa xol yaa ko xam waaye nag léeg-léeg nga gis koo xam ne fa tabaraka lu mel nii euh, xew-xew adduna yi rek da nga gis koo xam ne nii dana am doom waaye day xool ku ko doy na ko tuddeel ma ko kon nag sëñ Tuubaa loolu lay jëf jëflanteeg yàlla moo tax ne na nga fayal waa ahlu badar ci luy sax ba foofu na nga leen fay yiw yu bëri yoo xam ne du am yem ba ilaaxir waaye na nga sant sama mbind bi na sant sama mbind bi ba tey mu ne wax ni yet ci aalahu wa sax boo xayran kasiran wal tunir bii lax boo wacc yàlla na nga yàlla ani jëlee ci man aalahu fayal ma ñoñam muy waa këram fayal ma leen wa saxaboo ak saxaabaam ya xam nga bu njëkk indi toon aaloo ak yonent bi salaay salaam moo tax bi yoon mu indi leen ñoom ñëpp dana leen boole ci diggante fukki bayit ak ñaar mu jubli ci fukki weer ak ñaar yu am ci at bi mu ne wàcc yàlla nag ma fayal an yu ci man mu mel ni maa def aaloo waa kër yonent fayal ma leen wa saxaboo ak saxaabaam ya fayal ma leen xayiran ay yiw yoo xam ne kasiiran yu bari lay nekk waaye wal tunir na nga leeralee bii ci sama jëmb ji man Seexul Xadim lëx boo ngiram ma nga xam ne mooy sunna mooy mooy sunnaam si nga xam ne moom la fi bàyyi te nee na da koo donnaloo waxabtali sunnata wala xebaada nga xam ne ne moo ko may jëmbi sunna ak taxe ak jaamu yàlla guñ nangu lépp lépp suñ suñu borom da koo may ci yàlla waxab waxabtali sunnata wa sahaada wal xel mi wal xamali wala xebaada lépp suñu borom tabaaraka wa taala teg na ko ci loxom mu ne kon nag ma payal waa kër yonent bi ak saaba yi waaye yiwu bëri waaye na nga leeralee ci sama jëmm ji man Serigne Touba ngiram ma kon ngiram yonent bi tey bu demee ba leer loolu kay sunnatoo xaraa wa inni ahmadu kon wa inni ahmadu la wax man ahmadu maay ki ñëw di ko yeesal kon kay ci moom la leeree mu ne nanga leen fay yiw woo xam ne wu bëri lay nekk nga xam ne du am fu mu yem ba yow mal xiyaam ba ca aljana yi sax waaye leer le ci sama jëmm ji ngiram ma waaye wàcc yàlla nag ma payal anee jëlee ci man mu mel ni maa ko def jundaka te soldaar yi muy malaayika ya kenn xamul nuñ toll alkirama ñi di way tedd ndax wamaa yax la ma junnoo rabbika illa huwa maa yàlla rek moo xam malaayika yi nu ñem mu ne payal ma say soldaar yi nga xam ne way tedd lañ te tuddoon na leen ci gannaaw waaye foofu waxoon naa la semaine bi la ko tënk fii nag lam ci jublu mooy at ma moo tax mu indiwaat leen fii di ko bamp nga xam ne kon suñ tubaa malaayika yi jàppale nañ ko nu loolu xësid ak njaari bi rek boo ko xoolee da cay fiñ rawatina jibril muy seen muy seen chef nañ leen pay xayran yoo xam yu bëri lay nekk loolu rek mooy ba ilaa xëy ndax léegi da leen di félicité ngir liñ ko doon jàppale ci tukki bi waaye xutta boo leen payee ba noppi nag ma woo ma taale lii ñeel ma man Seexul Xadim almarama càkkuteef la muy daru mimi la almarama raama raw man nga xam ne foofu la béyee ko nag ma woo ma taaleel sama càkkuteef gannaaw boo payee sa soldaar yi boo ma payalee ca soldaar yi nga xam ne ñu tedd lañ bu mel ne maa ko def nag leen pay yiw bëri waaye nag ma ci woo ma taaleel sama càkkuteef waaye wàcc yàlla nag ma payal jëlee ci man al anbiyaaw sa yónent yu ma yónni yëpp wal mursa sa ñi nga xam ne da leen solo ñëpp te leen wal mursalina ak ñi ñu yónni ñëpp cent vingt quatre mille yëpp fa tabarakallahu xayran ay yiw yoo xam ne kasiran yu bëri la waaye wal tasit nanga nga dollee bii ci sama jëmu ji ak akmalina way mat ña ña dem ba jàpp ne kaamil lañ mat nañ kaamil ni kaamil lañ dootuñ mën a mooy yàlla duñ ti neex na yàlla te yàlla gërëm na seen lépp ñooñee na nga leen dollee ci man aay gannaaw loolu de mooy wax ji fee moom ñëpp na nga leen dollee ci man nanga ma payal yonent yi ak anbiya u ñëpp naka noonu tuddoon na ko ci gannaaw waaye xoolal fu ni nii indiwaat na leen ngir lan fonkeel gi rek ngir lañ ko doon jàpp ci tukki waaye di leen félicité ndax ñoo ko jiitoon ci lislaam waaye moo ñëw yaatal toolu bi lislaam ba nga xam ne lu motoon a bay yëpp suñ tubaab bay bay na ko ngir léegi nit ñi dañuy dugg ci biir tool bi rek di lekk ilaa ridaaka xayra saren haasida wax na ko ci ma fatul bisri sama xasida yi mbay la mu ñor rek léegi dañuy ñëw rek di lekk mu ne wàcc na nga payal an yi jëlee ci man al anbiya anbiya wal mursalina ak ña ñu yónni ña xayran ay yiw yoo xam ne kasiran yu bari la waaye wala tasit na nga doole bii ci sama jëmm ji àlla akmali leen way mat ña wàcc yàlla na payal an ni jëlee ci man waalidaya sama ñaari way jur nanga ma leen payal waaye nanga ma payal wa jëmi ak mboolem man képp koo xam ne bisiri sama mbégte saroxoo dana ko neex saroxoo dana ko kontaanloo nanga ma ko payal moom it xuyóoran ay yiw yu bëri bëri yaa sami yow yàlla muy aji nangu ñaan ci mu ne nanga ma payal sama ñaari way jur maamoor anta sali soxna jaaratu laay dana leen tudd ci xasit gi lu man ñett yoon wala lu ko ëpp loo xam ne day ñaan yàlla rek mu di leen pay te loolu danañ ci yegg du du xaj ci jotaayu tay bi ndax ni ñuy am yéene di di ko leerale jëmmi xasaayit gi loolu buñ ci taxawee dañ ci yàgg lool Sëñ Tuubaa nuuru daal di yaram la kooku yow mi koy xalam rek yaa koy xam mu ne nag ma payal sama jur maanaam pay gi na béy ko ci man waaye mu mel ni maa ko def waaye yow ko waaye koo xam ne sama mbégte neex na ko kon koo képp koo xam ne mbégte Sëñ Tuubaa naqar daal na na safara rek jëm yow mi nga xam ne yaa aji nangu jant waaye war xam yàlla na yërëm jamihal awliya mboolem awliya yi wal umma ak mboolem xeetu yonente bi salaay salaam na nga leen yërëm ñoom ñëpp waaye wal takk si fi na nga dàq wal takk si fi na nga wuññi àll si la nga xam ne ixtara dana leen gaar min xumma ci xeeti njàqare lépp loo xam ne xeetu yonente bi salaay salaam njàqare la moo xam fii ci duna ak ëllëg yomal xiyaam ne kenn koo dem mu ne nafsi sama bopp doy na la yonente boo dem mu ne nafsi ba nit ñi sax léeg-léeg dañuy jàq ba nga xam ne da ngay gis ku jàq ba nga xam ne Euh, day ñaq ba nga xam ne day mujj doon ab géej mu lakk mu lakk ngir njàqar rek mu ne na nga wuññi li nga xam ne dañ leen gaar ci njàqare moo xam fii ciir na ak ëllëg lii rek xoolal lii rek warham jami al awliya wal umma wal taksi fi la sixtara min qumma yërëmal mboolem awliya yow yàlla wal umma ak mboolem xeeti yonent bi sallallahu alayhi wasallam kii moo laa biir waaye wal tax na nga leen wuññil àll la nga xam ne ixtira dañ leen gaar min ko ci njàqare bépp njàqare bu leen mën a gaar rek wuññil leen ko yow yàlla bu leen lor mukk ndax suñ tubaab bëggul kenn du lor bëggul kenn du lor kon mbokk yi mën nañu yem foofu incha allahu bañ del si waar subaak jàmm yàlla nu yàlla defal dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa